ñu ngi ak euh, maître Ousmane Ngom ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay El Hadj yow nag euh, da nga yëngu ci wàllu politique bi nekk avoca nekkoon tamit ministre intérieur waaye tamit si dénk wàllu paj gi euh, dafa am nag lu mu toll loo xam ne dafa waxu di ay di njàmbat mu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk nag arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne kat sa tur la ñu bëri dafa indi débat ci assis ci dialogue politique bi nga xam ne ñu ngi koy amal fi mu toll nii ci diggante kujje gi ak ñu nekk ci nguur gi yow ak bi nga jël. dañ war a maintenir waaw wala déet arrêté Ousmane Ngom. waaw je crois que euh, arrêté Ousmane Ngom dañ ma ko parce que maa ko am naa ni dafa am bayre rek ndax du arrêté boobu rek laa signé signé naa ay arrêté yu bare bare. mais daal arrêté bi ñuy wax arrêté Ousmane Ngom moom defe naa ni moo ci ëpp bayre euh, mais euh, li tax ñu jël ko itam war nañ ko fàttali moo di Sénégal dafa nekkoon ci. Euh, jamono joo xam ni jamono ju rëb la woon euh, xel yi jaxasoo ba nga xam ni lu nekk mënoon na ci laxasu ba euh, yëngal réew mi déstabiliser réew ba loolu moo tax fi nga xam ni moo di centre ville du rek centre ville bi nee naa mooy xolu réew mi ndax fi la institution yu mag yi yëpp nekk bu di présidence de la république assemblée nationale conseil économique gouvernement beeg yooyu yëpp zone militaire mais sax mooy xolu koom-koomu réew bi dem ndax Euh, marché bi gën a mag ci Sénégal fi la nekk mais itam banque yi gën a mag ci Sénégal fi lañ nekk maanaam lu mat fukki fukk ak ñaari établissement banque euh, ñu ngi fi banque centrale sax bu euh, Afrique de l'Ouest mi ngi fi ak yëpp donc loolu mooy xoolu réew mi damay fàttali rek ni Côte d'Ivoire li fa xewoon manifestation ak marche yi amoon Bouaké ak Korogo ci la ñu doon ak manifester daal di dem song banque centrale yi Corogo euh, Boaké euh, daal di toj ko jël fa ay milliards ay dizaines de milliards ay centaines de milliards dem jënd ci ay armes rebelles yi daal di song Côte d'Ivoire mu doon guerre civile kon nag politique la ñuy wax ni politique u état politique de sécurité li li ci baax moo di anticiper doo xaar ba lakkale doo rek euh, naan da ngay xoddiku bala ngay lakkale la wala fi wax donc fagaru moo gën faj fexe ba balay mbir mi di ñëw nga fagaru moo gën gis nga France li ma xamoon dañoo wax France pays de liberté pays de droits de l'homme démocratie et euh, ñu ni dañuy bàyyi di ñuy ñu manifester Champs-Élysées et tout sax mais gis nga dafa paralyser France ministre de l'intérieur bu France dafa mujj jël benn arrêté Ousmane Ngom ci Champs-Élysées foofu ñu léegi kenn dootu foo manifester ndax gis na ni dafa bloqué woon koom-koomu réew mi euh, yëngal réew ma bu baax a baax ñun ñu ñun anticiper woon nañu mais ñoom dañu xaar ba lakk gi jàll ñu dooree jóg di si jóg ah, mais li gën a am solo moo di fi ñu toll réew mi dafa war a toog waxtaan bu baax ci li ñuy wax débat national ci wàllu sécurité ak liberté publique ba ñëpp xam lan mooy signification sécurité lañ mooy signification liberté ak responsabilité tax liberté mënul tegu ci kaw rek ni dañ koy teg ci kaw constitution bi na liberté rek voilà da nga koy exercer nu mu nu mu la neexee tubaab bi dañuy wax ni aucune liberté n'est absolue maanaam liberté de marché am na wante dañ ko encadrer juridiquement constitution bi def ko encadrer ci nu koy doxalee dans le cadre de lois réglement ndax dañu war a sóoraale ñi nga xam ni bokkuñu ci marché bi ñu nga xam ni participer wuñu seen droit ak seen liberté dem ak dikk seen droit ak liberté dem di jënd ak jaay commerce seen droit ak liberté liggéey seen droit ak liberté dem faju ji sax ci hôpital yi wala dem euh, port maanaam port bi activité portuaire bi ay milliards la par bés bu ñu paralyser centre ville bi yëpp comme comme réew mi yëpp dafay daal di rës kon nag liberté wu ñenn ñi fi mu tàmbalee foofu la liberté wu ñeneen yi yem il faut que ñu sóoraale ñaari catégorie de liberté yooyu yëpp te loolu état moom moo ci war a taxaw pour que trouble de l'ordre public bañ a mais aussi pour que sécurité publique mën a am dañu respecter l'intérêt général bi nga xam ni moo nekk ci kaw ñëpp tout en respectant également les droits des uns et des autres loolu moom mooy tey jii problème bi moo tax ma ni war nañu xootal waxtaan bi ñëpp toog waxtaan ci loolu ñu xool nan lañ ciy mën a déggoo pour que Sénégal mën a préserver démocratie bi nga xam ne am na ko ak liberté yi nga xam ni dañ ko xeex ay ati ati at ñeenti yoon ndax may xeex ay droit ay liberté démocratie jàpp moom ma tëj ma ba euh, xaw na sama jàng sax xaw na ci yàqu boo maa ngi France de am na ñetti weer yoo xam ne fi laa nekk ci biir kaso bi après la ba génn janvier dooree dem dellu ji sama jàng loolu yëpp di xeex liberté ak démocratie liberté yooyu nag conquérir nañ leen léegi ba nga xam ni presque plus de quatre mille manifestation danañ ko euh, permettre encadrer ko ci réew mi at mu nekk presque bu ñuy wax deux pour cent xëy na ci loolu la ñu ci interdire pour des raisons d' ordre public wala menace de trouble de l' ordre public loolu kay mën nañ cee waxtaan mën nañ cee déggoo ba jàmm ni ñooy. alors beneen point bi moom moo jëm ci article quatre vingt ñu bëri dañ jàpp ne dañ ko war a dind parce que méngootul ak jamono loolu tam lan moo ci sa xalaat. waa loolu mooy fekk si rek li ma doon wax léegi maanaam li ñuy wax ni waxtaan ci lépp loo xam ni jëm na exercice des libertés ak sécurité ak sûreté de l'État ak itam ormal bi nga xam ni war nañ ko jox institution yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi tàmbalee ko ci président de la république wala assemblée nationale wala yeneen institution yëpp ndax li wala fi di wax kenn du jiital nit ba pare di ko fakkatal su fekkee ni aussi dañu am ay institution yoo xam ne dañu ŋànk réew mi am na respect am na ormal boo xam ni war nañ leen ko war a jox ku xotti orma boobu nag yoon war na dal ci sa kaw kooku réew boo dem ci àdduna eh, existé na réew boo dem boo xoolee am na xam ne boo lakkee seen drapeau wala nga eh, ormal ba eh, ñàkk ormal benn institution a ah, defe naa ni caabi dana la féete gannaaw donc loolu yëpp waxtaan la moo tax ma ni débat national war naa am ñu toog pour que nit ñi comprendre une bonne fois pour tout diggante liberté ak responsabilité xam ni benn lu dem bàyyi morom bu la mayee liberté war nga ko exercer aussi ak responsabilité pour que ñëpp gis ci seen bopp mais fekkee ni yow sa liberté rek nga gis gisuloo droit wu keneen wala responsabilité wu keneen wala respect bi nga war a am ci institution yi ah, su boobaa aussi dafay doy waar loolu moo tax culture boobu culture démocratique war nañ ko suuxat bu baax ci réew mi pour que ñëpp delloo ci sen xel xam ni Sénégal def na ay jéego yu mag a mag a mag yu sore ba mu jógee sore na lool ba nga xam ni léegi ñëpp reconnaître nañ ni ah ci réew yu jiitu bu bu yàggul rek am na institution internationale yu ko reconnaître ci démocratie yi jiitu ci Afrique la ñu bokk am nañu ñaari alternance démocratique sans effusion de sang ñu am coup d'état ba ñu amee indépendance ba léegi ah, droit et liberté yi ñu ngi leen di respecter globalement maanaam presse privée bi existé na liberté d'expression liberté d'aller et de venir et cetera ak beaucoup d'autres libertés ñu ngi koy respecté au Sénégal démocratie nag c'est une marche permanente ce n'est jamais terminé bés bu nekk dañuy xool nan lañu ko gën a suuxate nan lañu ko gën a approfondir te loolu je crois que mooy wàllu lii ñuy def tey muy dialogue national bi pacifier l'espace politique mais aussi approfondir chaque jour davantage suñu démocratie ak l'exercice de nos libertés mais surtout ancrer li ñuy wax culture démocratique ci sénégalais yëpp. waaw beneen laaj bi mu ngi jëm ci statut euh, ville de Dakar bi nga xam ne tamit euh, moom mooy ay di njàmbat euh, ñu ngi koy waxtaanee am na sax warookat bi am ci diggante ku jege ñu nekk ci nguur gi yow da nga ci wàllu politique lan moo ci sa gis-gis. daanaka sawaruma ci wax parce que wax la boo xam ni je crois ñoragul euh, fu ñu koy war a waxee ak fu ñu koy war a euh, diingate wala di ci jël position mais li ma ci junj rek moo di bu ñu jaawale li ñuy wax statut spécial ak délégation spéciale délégation spéciale mooy mu am rëq-rëq ci institution municipale bi wala lii tubaab di wax dysfonctionnement grave wala fa grave boo xam ni tax na euh, pouvoir central maanaam état bi jël décret nommé haut fonctionnaire ak ay euh, yeneen fonctionnaire yu dëw def délégation sociale sociale di gérer à la place en lieu et place équipe municipale bi amoon na fi ci ay mairie ak ci ay gox ci ay jëmmi jamono euh, mais loolu donc fekk mu presque sanction la loolu nag mënul doon la règle exception rek la mën a doon règle bi moo di koo xam ni euh, da nga war a jiite collectivité territoriale wala commune dañ la war a fal élection moo la fa war a yóbbu maanaam mu doon lu ñuy wax suffrage universel direct wala mu doon suffrage indirect maanaam conseil bi euh, fal la loolu moo tax ñuy wax premier magistrat de la commune wala de la ville comme ni ñuy waxee premier magistrat Eh, réew muy président la république donc loolu moom eh, defe naa ni avancée démocratique la ci àdduna bi boo yemee réew yu mag yëpp daa ko fa gis eh, mu di Paris mu di New York New York Londres wala Lyon Marseille ak yeneen réew yu bare bare loolu nag wuute na ak li ñuy wax statut statut spécial dëkk yooyu mala la léegi am nañu statut spécial mais terewul dañuy fal seen maire et tout ça mais statut spécial mu ngi mu ngi jëm ci compétence ak attribution yi nga xam ni war nañ ko exercer maanaam équipe municipale bi wala conseil municipal bi war na ko exercer par rapport à l'état central parce que il faut pas que ñu fal la rek ni la voilà am nga budget am nga kii et cetera mais euh, doo wu ci gestion quotidienne de vie population bi ñu ne éclairage public nga ne état buñ ne tali nga ne état buñ ne euh, cadre de vie wala environnement wala yeneen Euh, activités yi nga xam ni war nañ ko def état central war na ci mën a dindi loxoom comme ni ñu ko defee à Paris wala à Londres ou pour que équipe municipal bi war ko def donc débat bi tey fi mu war a féetewu mooy nan la ñu mën a xool répartition compétence ak attribution wu équipe municipale ak conseil municipal par rapport au à ces questions là nan lañ leen mën a régler ba nga xam ne dana am équilibre entre état la mu ciy def ak conseil municipal équipe municipale bi lan lay ci def. laaj bi mujj mu ngi jëm ci mbirum coronavirus di ay di njàmbat lu toll ci rek euh, mille personnes ñàkk nañ seen bakkan fële ca Chine tey jii nag débat am senegal ndax dañu war a indi doomu senegal nekk fële ca Chine wala dañu leen for a bàyyi yow nekkoon nga ministre bi ñu dénk wàllu paj gi lan moo ci sa xalaat ak naka nga koo jàngatee. waaw yaakaar naa ni kooku il faut dal am ci parce mbir la moo xam ni ñëpp la soxal. man li may jëkk wax moo di euh, suñu warugar d'abord moo di ñun ñëpp ñu taxaw solidariser wu ak waa moo tax ma ni tey ji ñun dañu waroon taxaw ñun ñëpp ku nekk ni man tey chinois la nous tous des chinois ba xam ni waa Chine xam nañu kat Sénégal vraiment euh, réew la bu exprimer solidarité loolu mooy li may jëkk wax leneen li ci des moo di euh, épidémie yu mel nii am na amoon na fi Sénégal xëy na bii la kenn xamagul woon bi mu amee Ebola dafa amoon ci réew yooyu rek ñuy sénégalais yi nekk Afrique centrale yëpp wala sénégalais yi nekk Guinée yëpp dañ leen di rapatrier et tout sax kon des milliers de sénégalais la ñuy rapatrier et tout ça kon lan lay jur ci réew mi et tout ça moo tax tey baax na ci trop man euh, maa ngi def sama solidarité suñu fukk ak ñetti étudiants yi nekk foofu ak seeni waajur on peut mën nañu comprendre bu baax a baax seen angoisse seen jaaxle ak seen métit euh, ñu ngi koy partagé itam mais loolu est-ce que war na tax tey jii ñu ni coûte que coûte sans ñu réaliser condition yi nga xam ne yëpp war nañ ko réaliser nañ leen rapatrier maanaam ñu transférer jaaxle boobu ak angoisse boobu ci quinze millions wu Sénégalais yi parce que bu leen indi woon te kenn xamagul ndax maladie bi laal nee leen wala laalu leen ah defe naa ni quinze millions sénégalais yëpp ñooy jaaxle ñooy angoissé ku nekk naan ah man xëy naa waa ji sama dëkkaale bi wala waajuram nangam nangam mbir mi dana ma daal dafay daal di indi psychose bu metti moo tax ma ni nit ñi dañuy ànd ak teey parce que OMS ci boppam organisation mondiale de de la santé dafa taxawal lu ñu tuddee règlement sanitaire international maanaam bu ko ñëpp respecté règlement boobu muy ay recommandation defe naa ni mën na wàññi impact mbir te Chine mooy première puissance économique mondiale moom moo koy xëccoog états Amérique am na un milliard quatre cent millions de personnes tey jii capacité innovation technologie yi nga xam ne am nañ ko mais daanaka benn réew amu ko ci fukki fan tabax nañu ñetti hôpital tabax nañu ay robot yoo xam ne ñoom ñooy dem di servir maladie même ñi ñi nga xam ne wér nañu ci feebar bi dañuy jël plasma maanaam liquide bu nekk ci ñoom nee nañu mën na faj ñi nga xam ne ñu ngi feebar kon nag Chine defe naa ni capacité yi bi mu am ak système sanitaire am am ko naa réew yu bare mën nañu wax ni réewu Afrique yëpp am kon nag réew Afrique yi dañu war a tey ku nekk jël sa matukaay fagaru et tout sax li ñuy wax bonne pratique nga appliquer ko également sa ay nit jàng leen culture de la santé. maître Ousmane Ngom ni sant di gërëm bu baax a baax. maa ngi lay sant Malick di leen gërëm